yeneen mesures yi nga xam ni jël nañ ko tamu tamu nekk ay mesures yi propre au département de Rufisque parce que démb waxoon naa ni am na ay mesures yu ñu jëloon mais mesures yooyu dañ ko suspendroon pour xaar kilifa yi ñu joxe en tout cas ñoom orientation yi tey mën na wax ci département bi euh, jaay yi nga xam ne ñoo ko doon jaay ci marché parce que ñi nga xam ne dinañ dem ci marché central dinañ gis ni bu 17 heures jotaan rek marché bi presque ñu bëree fa daan dese di jaay ba xaaju guddi jël naa mesure pour tere loolu bepu jaay buñ doon jaay ci mbedd marché yi nan ko dakal ku bëgg jaay nga wut canting wala nga wut magasin wala nga dem fenen mais dajalo bi nit ñi doon dajalo si marché yi pour jaay loolu tere nan ko. benen mesure bi nga xamni aussi jël eh, du ci marché bi rek c'est au niveau de tous les marchés dans le département benen mesure bi bi nga xam si jël nan ko aussi euh si quai de pêche bi quai de pêche bi aussi waxtaan nañu ak acteurs yi nekk foofu pour ñu xool nan la fexé ba défarat suñu suñu ay taxaway donc mesure bi ñu jël pour quai de pêche bi moy désormais quai de pêche bi midi la ñuy commencé liggéey ba 6 h ñu tëj benen mesure bi nga xam aussi jël nañ ko xeyna lu lo loo xam lu warante am la mais jamono dina dox ba nga xam peut-être euh contrôle bi déma non moy auto yi nga xam moy transporter nit ñi wax nañ ni détu ñu nangu ci benn auto mu am ku amul place ku tok benn oto deetu ñu nangooti mu chargé ba fees jël ay nit dugal si biir ñu taxaw loolu aussi wax nan ko euh, am na lun ma signalé woon aussi muy fii si wetu euh, jumaa juma tukkuleer yi fi nit ñi di jaar ñu wax ni foofu dafa xat nit ñi dañuy buuxante dinaa fa mettre en place benn dispositif boo xam ne mooy réguler nit ñi bu nu bloqué ñii ñii dem benn sens ba pare bu nu paree ñu arrêté ñeneen ñeneen dugaat ba nga xam si xat bi ak buuxante bi daan tax xëy na nit ñi am nu ragal aussi loolu dina dina dina dina dina wàññeeku. ma encore une fois ñaan waa Tëngéej ñu jàppale ñu si xeex bi.